Abdourahmane Sow maa ngi lay nuyu. waaw soxna Fatou maa ngi lay fay. yow yaay président COS M23 yow nag euh, ma fàttali ni euh, jamono yéle dañu la testé woon positif ci euh, Covid 19 muy coronavirus tey nga mm. delluwaat ci sa wér ndax am na loo mun a wax sénégalais yi ci ni nga dundee jàngoro ji xëy na ngir leeralal ñi naan amul ak itam xëy na mu doon ay seede ci ñi nga xam ne am na luñ ci doon joxta waaw bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala shafir seydina muhammad wasalim soxna Fatou maa ngi lay fay di leen gërëm yéen tamit waa réew bi ci euh, occasion bi ngeen ñu jox ñu mën a wax ak askan bi euh, wax ak askan wi bi ci njëkk mooy sant yàlla suñu borom julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba des di leen wax jaajëf joo xam ne am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem ndaxte bi yàlla dogalee lii dal ñu muy ñu ñu am virus Covid bi ba tëdd presque deux semaines hôpital euh, amul fenn ci àdduna fu ñu noppee di ñu woo euh, di ñu envoyé ay message ak wàll yëpp nag ñi nekk ci nguur gi comme ñi nekk ci opposition bi euh, société civile sénégalais lambda bi nga xam ne amu fi tur moom sax ay gën a gërëm parce que du càgg ni nit ñi xamuñu leen rek doo leen tudd mais dafa bëri ay sénégalais yoo xam ne kenn xamu leen yëkkati seen dërëm woo seen téléphone jàppale gi jàppale ma di leen sant di leen gërëm di ñaanal tamit ñi nga xam ne ñi ngi tëdd ñëpp yàlla na yàlla fokk seen bopp waaw feebar bi moom li tax sax bi ma dalee mu am solo dégg naa sax ñuy kaf di ko li naan damay damay damay jéemu complot yooyu waaw loolu du ñàkk parce que Sénégal lu ne mën na fee am mais euh, damay fàttali rek ñun dafa dañuy liggéey hôpital benn ñu xam ci feebar bi euh, ñaar ñuy ay ay citoyens engagé à travers la COS M23 et à travers le REVOCAP réseau des volontaires communautaires en appui personnel de santé moi je pense que ci ben dem nañ ci plateau bu ne bind nañ ay bataaxal euh, euh, joxor bi sénégalais yi wax ak euh, autorités yi ne leen feebar bi xam nañ ne dëgg la mais fitna la nar indi ci réew mi la indi ci réew mi ndaxte fi mu nekk nii boo gisee statistiques yi daw ñaa ngi ñàkk seen bakkan feebar baa ngi yokk di law mais beneen bi si mooy sur plan économique wax dëgg yàlla doon na dina fi indi fitna goo xam ne musul am ci àddina rawatina ci réew yi nga xam ne dañoo ndóol yu mel ni Sénégal donc ñu nekk ci bi nag bu yàgg dem def ay dessin infection dem ci maternité Abass Ndao maye fa ay ay masque ak ay produits sanitaires dem baraka def fa la même chose euh, bi ma hôpital rek donte euh, maa ngi doon xaw a féex maa ngi doon wax ak sama njoñ yi ñoom euh, chargé de l'organisation Abou Diallo ñoom Marème Soda Ndiaye ñoom Hélène Tine ñoom Aline Tine ñi bokk Revocap yëpp les volontaires ba fan yële rek dem nañ lycée Parcelles di fa may ay ay ay ay ay produits parce que xam nañ ne feebar bi la ku mel noonu nag boobu ba léegi nekk bu ah waaw du def lu ñu sant yàlla rek parce que euh, loolu moom natt la boo xamante ni euh, diisoon na parce que am nañu siy ñàkk seen bakkan am nañu si ñaar seen bakkan mu tere bu la ci yàlla defee mu dal la xëy na am na sax ñu ma woo laalu hôpital ne ma ah yow de tax nga ñu xam ne feebar bi dëgg la waaw parce que moom ma dalee nag fan yu njëkkee sonnoon naa trop yàlla nag moomu suturaal ba nga xam ne faj bi euh, jaar na yoon maa ngi ciy profité di remercier waaw euh, le corps médical c'est vrai que nag demuñu ñu may defal traitement discriminatoire parce que man maay Abdourahmane Sow wala fa laay c'est des mm. professionnels yoo xam ne yi fa nekk ndool ñëpp lañ mu daan defal rek lañ leen di defal ku wër ñu bàyyi la mante bàyyi naa fa ñoo xam ne ba may dugg fa laa leen fekk ba may génn fa laa leen bàyyi ndax feebar am na ay xale sax yu ma fa bu ma fa nekkaloon ak ay yuuxoom euh, kuy xel ñaar ci feebar bi rek xëy na peut-être yàlla daf la nattu doo bokk ak ñun gis-gis mais ñun dañoo nekk l'hôpital benn ñaar daf ñoo dal mu metti woon trop mais yàlla dafa ne sutura ba wér nañ dañuy ñu nekkoon nag duñ ci dellu ginnaaw tey la ñuy gën a xeex pour mën a jàppale autorité yi jàppale sénégalais yi pour xeex mi feebar bi dellu ginnaaw xam ne amaana mi ngi fiy ñëw ay fitna yoo xam ne ña ngi koy ragal daal il faut ñu teel cee taxaw ci kàttanu yàlla. alors seetlu gi mooy euh, nit ñi bàyyeeku nañu tey ñenn ñi ba tey ñu ngi wéy di weddi jàngoro ji ñenn itam jàpp ne loolu euh, dafa rek euh, doon njeexitalu ni nu yore mbas mi maanaam gestion pandémie bi ci Sénégal noo gisee justement boobule gestion yow mi nekk sur le terrain nekkoon itam hôpital bokk ci ñi tëddoon feebar. waaw mbas mi ñaar ñaar ko fi may Euh, benn bi mooy ni ko nguur gi songee donte nag jàmbaar lañ def nañ li ñu ñaareel bi mooy euh, yenn réalité ñiy dund fii moo tax nit ñi jékki-jékki am fit parce que da ngay après autorité bi comprendre ne que mënuñu toog rek di tëju di couvre-feu parce que nit ñi duñu liggéey duñu mën a faj seen soxla bu yàggee dañuy génn wàcc ci tali bi Sénégal dara doxatu fi fii ci kanam dootuñu am ndox mu ñu naan dootuñu am ceeb bu ñu lekk parce que dootuñu ko denc ña ngay dépenser rek te te te ah, ah, lu xaalis moom buy dem te te du dugg fitna la beneen bi ci des mooy ni autorités yi songee tamit euh, gestion bi parce que tamit ñun dañu yàgg wax ne que un comité de gestion euh, multipartite ou bien multi acteur nga xam ne euh, day dem am dimension participative. li nga xam ne dañ koy def dañ ciy waxtaanee ñu songandoo ko ñun bëggoon nañ ko parce que tey jii mooy li ma doon wax rek bu ma gisee yenn leader politique yi dem pale génn te boobu léegi dara seen taxawaay xëy na ku nekk yaa ngi def en solo kii maye na lii kii maye na lee moi je pense que sax ñoom liñ ci li ñu am ci autorité politique yooyu benn mënoon nañ ko am ay junni société civile yi ngay gis ñoom Guy Marius Sagna ñoom COS M23 ak ñeneen ak ñeneen nek ay ay ay doomi mi xeex euh, bu ne ñu def ko foog naa xeexal Sénégal yemul bu yemul rek ci dénoncer la mal malgouvernance mais waroon nañu mën a jox opportunité ñu déployer wu jàppale nguur gi organiser affaire yi ba nga xamante ni tey jii kenn du laaj maasu ceeb euh, fay fu ceeb bi dugg kenn du wax marché bi fii la jaar kenn du wax ça a été parce que ñun suñu bopp ñoo koy conduire te bu doxul dinañ assumer ne ñun la euh, euh, te dinañ mën a xam lu ñuy wax Sénégal yi malheureusement démarche boobu amul moo tax benn wàll bi Sénégalais day bu ñu déggee ay jox nañ ceeb kii kii amul ceeb Mansour Faye jël na mais loolu dafay tax. lañ naan lii euh, lekkukaay xaalis dañoo yem peneen bi si des nag mooy nit ñi moo ñu toog tëju rek du ñu dem du ñu dikk te moo am ay wareef yu leen di xaar ci kër gi euh, xale yi xiif euh, ñoom amuñu lu ñu fajee seen soxla loolu mënut a dem lool tax nag tey jii ñu confronté situation bu difficile mooy ñenn ñi dañ jàpp ne feebar bi amul ña sa des ñu toog di xaar autorité bi muy le président de la république ak yooyu dafa am lu ko dépassé donc ñun ca njëlbeen teel ñoo wax ne loolu la ñu xalaatoon ndax kay ngàññe boo ko woolee ci mbir bi bu bu mu liggéey ko xëy na après bu doxul boppam lay ŋaaññi wante du la ŋaaññi mais boo nëbbatoo it ñu jaawantu jël ceeb joxe jël diwlin joxe alors que am na feneen fu ñu wonoon concentré vraiment euh, liggéey bi euh, dina doon am njëriñ dalal xelu nit ñi tey ji yaa ngi dégg biologiste yi euh, ñi ngi ñi ngi grève fan yële médecin septième année yi doon grève yooyu yëpp dafay indi fitna yoo xamante ni sens dessus dessus affaire yi te loolu tamit dama jàpp malgré président de la république mu def bu amee ay manquement rek moom moo ko war a assumer parce que am na noo xam ne bu ko doxalee woon wala déglu nit ñi xëy na lii du lii du am bi ci des mooy euh, dimension politique da ciy dugg dañ lay di chaque jour la famille dans le pouvoir dama jàpp ne que li fi mu ne nii mbas mi donte metti na occasion la woon ñu ñu defaraat réew mi la bonne gouvernance la transparence yooyu yëpp opportunité la woon la solidarité nationale tout ça ay opportunité la woon donc autant nguur gi que ñun am na fu ñu manqué mais du nekk ku nekk ci ñun rek na ko assumé ak lu nekk it lu waaye mën a def na ko def mais feebar bi dëgg la feebar bi dëgg la dañ ko bind man damaa nekk ay nit ñu hospitalisé foog naa lool jarul te wax sax parce que mm. tamit toog fii naan feebar bi dëgg la nag. waaw vraiment Sénégal war na dépasser foofu daal. yow naka la la dalee justement feebar boobu euh, ñu njoxtu ne yaa ngi doon respecter gestes barrières et tout donc euh, fan nga yaakaar ne fa nga ko jëlee. waaye man de ñi may gën parce que day wax mais président yow da nga doon respecté da ngay takk sa masque da ngay da ngay def lii xam nga hôpital laa ne on nous donne du matériel mm. pour raxasoo ay masque mais nag ¿eh? waaw loolu moom euh, bokkoon na ci li ma gën a fitnaal muy nga nekk ka communautaire mais beneen bi ci des tamit mooy wàll nit ñi parce que yow boo dee da ngay dem di sensibiliser di jël ay matériel di joxe di jël sax xaalis di cotiser euh, pour pour pour di jël jënd ay matériel waaw xëy feebar boobu nga wàllu ko nit ñi loolu dafa xawoon diis di woon sax stigmatisation laa ragaloon. Mm. mais loolu laa gënoon ragal que ñun ñi nga xam ne yàlla def na ñu am fii ay taxawaay ci réew mi ñu mbir mi di jaar ci ñun di yegg ci ay nit mais yàlla dafa baax. toutes les personnes contacts yi ma amoon samay waa kër samay euh, liggéeykat waa kos ñi ma nekkaloon ñu ñëpp yàlla def na sutura ba wàllu mu ci kenn ba nga koy wàllu parce que mm. loolu daal moo doon sama préoccupation bi gën a mooy waaye yàlla yàlla bu ma wàllu kenn waaye mm. yàlla bu ma wàllu na ma mm. pour être franc euh, nga dem cas communautaire la xam naa ne daal maa ngi dem ay boo maraîcher doon fa may ay ay ay matériel ànd ak sama waa Revocap yi dem naa fi hôpital Abass Ndao dem naa fu ne donc dafa am période d'incubation boo xam quinze jours période de quinze jours la. Mhm. mais do xam à quel moment des fois bof doo xam daal. doo xam wax dëgg yàlla xaw ma wax dëgg yàlla. xaw ma foo ko jëlee waaw ah, waaw wax dëgg yàlla. Mhm. ñu ñëw ci actualité bi très rapidement fan yi Sénégal li ko yëngal mooy ay wax yu ñaaw ay saaga yoo xam ne mi ngi jugee ci ay kilifa ci kaw alors mm. euh, saaga yooyu yow en tant que citoyen sénégalais noo ko dundee laxasu ci itam ci biir wax yooyu am ay révélation yoo xam ne mi ngi junju ay luubal ay détournement yoo xam ne itam alalu askan wi la ñu xam la lool euh, ci euh, xeex ngir yëpp leer ban taxawaay ngeen nar a am yéen waa COS M23 ci mbir mi waaw bu may wax waxu taxawaay sax man dama jàpp ne wax dëgg yàlla donte ñu ngi koy commencé miin te loolu baaxul ci réew mais gàcce dong la ñu am gàcce dong dong dong la ñu am ndaxte euh, am na taxawaay yoo xam ne moom u ko wax ju ñaaw parce que ñu ko gën a ñu fi gën a ndaw defoon nañ ko fi ñu jàppale ak yéen bu leen nga xam ne ñooy ñuy représenté ci ay instance yu yu mag yeeg yooyu euh, ñi nekk biir palais présidentiel ñii ne ñooy entourage président de la république ñoo mën a def nii waaye lan la yeneen Sénégal yi ndaw yi nar a def gàcce dong lañ ci jëlee ak naqar wante nag Euh, donte ñi ñu koy commencé bindal foog naa dafa doy dafa dakk parce que bu lu weesu saaga yi parce que tamit magum jëm taxaw di saaga wala xale ñëpp ci yem sax wax dëgg yàlla sa war war ma bopp rek ngay xotti parce que nag dama lay wax soxna Fatou. Hmm. wallahi Sénégal am na am ay homme de valeur. am sama benn waaye bu ma xam sama xarit la acteur la ma woo ko ne ko diw mu ne ma ne ko jàmbaar nga lool mais saaga mu ne ma ne ko noo ba parce que sénégalais bu bu pur dëgg-dëgg am valeur yi ñu am. du nangu du bëgg kuy saaga di nga am sa groupe nag bu laan la yow la yow la yow la mais sénégalais yi bëgguñu loolu te loolu dafa baaxul mm. loolu dafa baaxul dafa ñaaw donc loolu dañ ko war xeex ci anam yu bëri mais foog naa ko ko war a xeex dëgg euh, ñu tegaan ci yoon parce que bu dul saaga ak xaste yi am na ay révélation yi nekk ci biir yoo xam ne kenn mënu koo weddi meneen mm. bi si des mooy nga bëgg bañ Macky Sall nga bañ ko mal gouvernance dafa profonde ci yaru yaru réew mi depuis lors nañ ko waxte dee bi si des mooy sa responsabilité parce que tamit moom la ñu dénk suñu kàddu moom la ñu fal ni muy defee yitt ci yenn yi ba nga xam ne dara du ko ci rëcc noonu la a am yitt réew mi du muy doxee ba nga xamante ne yenn yi du mën a am ñi ngi wax euh, littoral bi ñi ngi wax foncier bi même bu dee am nañu si antérieur ñi ngi wax ay détournement ñi ngi wax mal gouvernance ñi ngi wax ay saaga ñi ngi wax kii mais bi gën a garaaw mooy loolu yëpp ay naqar yu sénégalais yi am ñii toog amuñu ndox muñu naan ak yeneen ak yeneen nga bëgg ci boole réew moo xam ne fii ak ci kanam xamoo ndax danañuy fay ay salaire wala déet fi mu nekk nii on ne parle plus du réchauffement du climat mais on parle du réchauffement du climat social. lii ñuy gis nag muy ñëw ku ci jugul def ci ay jéego wala di nga am bàkkaar parce que COS M23 ma ngay waxtaan seeni biir. tàmbali nañ ko mais ña ngay waxtaan ak ay nit ñoo xamante ni ay kilifa lañ ci seen ay ay taxawaay yu yor ci réew mi ne bi yoon duñ toog di def ay conférence de presse wallahi bu jaree dem toog ci président de la république dinañ ko def jox ko un programme boo xam ne du doon seen programme de campagne dañ ko naan ñaar yi ñett yi ñeent yi def ko ndax mu tane dinañ la ci jàppale boo ko defut nag président de la République wallahi azim bu gars yi di génn di di xeex parce que dootuñu ko mën a muñ ñun ca kanam la ñuy nekk te duñ ci dellu ginnaaw parce que la ñu war a def def nañ ko on va épuiser toutes les voies de conciliation parce que ñun nekkuñu fi pour nekkuñu fi pour yéene ko mu mu daan wala def mais nag wax dëgg yàlla nag fi mu nekk nii dafa doy te xam nañ ne fii ci kanam boo jékki-jékkee amoo salaire yoo fay nit ñi amuñu lu ñu lekk nit ñi amuñu naan gars yi dañuy génn ci mbedd mi te lii ñuy gis ñii di ñëw ak coow lu bëri yeeg révélation yeeg yooyu jig réew mi te réew mi nag mu yàqoo ñëpp la yàqoon président da ci yàqule ñun dañ ci yàqule parce que bu ñu toogee ñu dégg tëll tëll réew mi di tàkk amul kenn ku muy amal njëriñ moo tax ña ngay pare loo xamante ni xam nañ ne ëpp ñu fi xam-xam mais jàpp nañ ne bu ñu demee ne ko président de la république ba inondation bi ñëwee da nga ne situation exceptionnelle Sénat ba dañ COS M23 daa demoon seeti ji Pape Diop ne ko jàppal ci liggéey président pour que Sénat ba dañ tey ji am na fi ay institutions yoo xam ne dañ leen di woowee ñun institution budgétivore parce que institution yooyu ay américains yi di yor ak ay français parce que am nañ li ñu lekk am nañ li ñu naan am nañ ay ndox ñun nag mënoo fi teg ay institutions yi jël ay milliards di ko di ko jox ay nit fekk ni ñi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan mbas am nga naan nit ñi takk leen seen biir ba pare doo takk biir ñooñu hmm. beneen mooy yar nga fi ay fonctionnaire rek ñuy nekk say wet ay salaire yu cinq millions dix millions yooyu nañ ci wàññi ay pourcentage yow sa fonds politique boobu nañ ci wàññi ay pourcentage jël ko def ko ci fond de Covid bi boobaa au moins Sénégalais yi dañu xam ne am nga volonté jàpp ci liggéey bi mais doon nit ñi dañu wàññi seen dund nañu restreindre ni nañ def lële te yow ak ñeneen xaalis ba ngeen di yor ngeen nekk jàmm ak seen i loolu xel déggu ko. beneen ba ca des mooy démarche politique boo xam ne dina bokk luy apaiser situation yi mooy mu wax ci mandat bi mu leer une bonne fois pour toutes yooyu dina ba tax ñun ñu gën a sawar am taxawaay bi bi des nag mooy autorité réew dafa ñàkk autorité moom moo ko def nag. parce que moom mooy naan maa yor dossier bi teg naa kur fii def naa lale loolu nji njaaga mooy njag mais gëwuma ni que c'est toujours c'est trop tard pour bien faire en tout cas man sama wàll bopp lu coow li di bëri bëri maa ngi ciy waxtaan ak sama dinaa ko assumer gàdd sama ab ab document wan ko Sénégalais ba ñu xam lan moo ci nekk dem jox ko président de l'Afrique waxoon naa la ko fii xaw ma yow laa ko xaw ma kan soxlawu ma kenn ku ma jox poste soxlawu ma dërëmu kenn pas-pas dong moo ma ci tax mais du ma toog di xaar ba réew mi tàkk ñu naan xamoon naa ko lépp luñ ci war a mën a def ba nga xam ne président dinañ ko nañ ko pousse pour mu jël ay décisions yi nga xam ne dina anticiper crise bii di waaj a ñëw nañ ko def bu ko defut nag ba nga xam ne ñun la ñu waroon def yëpp def nañ ko ah wax dëgg yàlla lañ ko daan defee rek dañuy ànd ak gaa yi dem taxaw ca kanam parce que nag loolooy dëgg. jërëjëf Abdourahmane Sow amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ni yow yaay président bu COS M23 ñu ngi lay gërëm bu baax. waaw maa ngi di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla barkeel liggéey bi di gërëm sénégalais yëpp ci seen taxaw bi ñu am ci man ñi nekk ci nguur gi comme ñi nekk opposition yàlla maa ngi leen di gërëm di ñaanal malade yi di ñaanal Sénégal euh, damay wax keroog sama xarit Abou Diallo ma ne ko Abou euh, damaa bëgg réew mi damaa bëgg réew mi ndax di ngay xii dañuy ñaanal Sénégal waaw dañuy ñaanal Sénégal la bokk yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi amiin jërëjëf dañuy yéene suñu réew yàlla na ko yàlla yombal ci barke Seydina Muhammad amiin jërëjëf Abdourahmane Sow